bëgg ma ñëw ci wetam en tant que premier ministre pour li nga xam ni yéene na ko Sénégal li nga xam ne mu ngi koy def Sénégal ma bokk ci ñi ko ci jàppale may sant yàlla bu baax a baax a baax di julli ci yonent bi di sant président de la République ndax confiance bi yàgg na nekk naa directeur général des impôts et des domaines nekk naa ministre de l' et des finance nekk naa ministre de l' économie des finances et du plan nekk naa ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l' extérieur ma ko ciy sant di ko gërëm di ñaan yàlla lii nga xam ne yaakaar na ko ci ñun ñu nag ñi nga xam ne ñun ñooy ànd ci gouvernement bi ñu mën cee def lu ëpp njortam loo xamante ni dina jariñ réew bi yëpp ndax loolu rek la soxla la nga xam ni wax nañ ko ko mooy am nañu yéene liggéeyal ko liggéeyal réew mi ñu ñaan yàlla ci xalaatam mu rafet mu gën ñoo jàppale ndax la mu bëgg yëpp yéene ko Sénégal te ñu xam ko mu mën koo def na nga xam ni soxal na ko nag mooy lu jàmp mooy lépp loo xam ne dafay dem ci askan wi ndax àdduna bi xam ne ni jafe na lool bu yi ñu toll lu jëm ci wàllu njëg yi président bëgg na gouvernement bi taxaw ci lu mu gën a gaawee li jëm ci wàllu kaaraange li jëm ci wàllu dëkkuwaay yi li jëm ci wàllu assainissement ndax nawet bii nga xam ne ñu ngi ci am na yu bari yoo xam ni gis nañ ko ci réew mi bokk na ci li nga xam ni gouvernement bi war na cee taxaw ci saasa li jëm ci wàllu njàng mi ci wàllu formation professionnelle mooy xale yoo xam dañu war a jàngal ndax ñu am ay métier fexe bu ñu amee métier mën a liggéey li jëm ci wàllu entrepreneuriat ak ci wàllu liggéey bokk na ci priorité ya nga xam ni président de la république sant na ko premier ministre bi moo gouvernement bi nga xam ni am na yéene teg ko te du yàgg mais loolu yëpp daa bëgg ñu def ko ci li ñuy woowee état de droit état boo xamante ni àq yi ak yelleef yi dañ koy sàmm bu baax a baax a baax a baax loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko wax ma leen di sant yéen ñëpp ci seen teewaay di leen gërëm incha allah du yàgg balaa ngoon gi aux environs de 18 heures jëm 19 heures incha allah président de la république dina dinañu jox autorisation ñu siiwal ña nga xam ni war nañoo bokk ci gouvernement bi ma leen di sant di leen gërëm je vous remercie voilà. jàmm ji info point net informer, éduquer et dans la paix.